mbokk yi maa leen fi woolu woon tey pour à monsieur Farba ndax ñun dañu di ay sénégalais di ay jeunes di ay apériste bëgg Macky Sall ba mu jeex ci ñun ba mu jaral ñu lu baree bare am na lu ci nit ñi xam am na loo xam ni buñ koy wax fii fii lañuy fanaan man de ma part personnelle ma seetlu ne mënuma nekk di xeexal sama njiitu réew di xeexal sama chef de parti contre l'opposition mi nga xamante ni mi ngi fi nekk présent di créer des mauvaises communication pour jaxase population bi ak président bi ma war a taxaw jàkkaarlook ak ñooñu wax ak ñoom dëgg ba pare ma gis ci sunu biir am ñoo xam ne dañuy jéem a écraser moo tax tey moo woolu leen fi tey pour ñu waxtaan ci loolu la première fois dañoo daje ñun ak lu PM ak yenn ci kilifa yi permanence pour préparer meetingu Pikine bi bi mu waxee moom Farba ba pare mu jox mbay Ndiaye mu jox gi giraas yi suma juumul après mu jox PM PM daal ne ah nañu jox kàddu gi jeunes yi ñu wax wala jigéen ñi wala ak góor ñi mu ne déedéet déedéet kenn du wax waxal rek PM après ñu def ñaan donc on n'a pas pu ce jour-là s'exprimer et ce meeting de Pikine était très important pour moi parce que man Je suis de Djid de Tcharekao. J'ai milité là en, pour Alternance 2000, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'avais envie de m'exprimer. On nous a pas, laissé l'occasion. Arrivé à la meeting de Pékin, moom moo yoroon fëyam moom moo décidé kii wax ku waxul en plus de ça on m'a pas laissé l'occasion de chanter le président de la République monsieur Macky ku ne xam na ni Ngola Diva artiste chanteuse la ku ne xam na ni Ngola Diva politicienne la ku ne xam na ni Ngola Diva euh, waykat la te woykatu président la kon bu ma sañoon bu président di amale ay xeexew damay toog foofu woy ko bàq ko ñu jógee ci ci loolu ñu dem Thiès ñu yegsee ñoo ngi fa yegsi ay une heure matin ñu toog ba ay maanaam cinq heures ñuy noddu ci laa dugg ci biir permanence bi après fexe ba jege président di ko nuyu fi ma naan ngoo fi ma naan laaj yi ba comment far ba xëcc ko buux ko yóbbu ko muy deux fois beneen bi ci topp ñu dem jiitu ko Malicounda bi ñu yegsee l'adjoint maire dalal ñu jox ñu ay carte yoo xamante ni mooy carte tribune présidentielle ñu euh, dem foofu ma eh, ñu inscrire sama tour pour ma war a def prestation pour way le président Macky Sall bi mu ñëwee mu teggiwaat loolu ba ñi nga xamante ne ñoo woy avant l'arrivée du président ñoom ñoo woyaat ab pano bu président toogee bi ma toogee gis ko moom mu dox waaxu xëcc loxo Doudou Ndiaye Mbengue indi ko pour mu woy ma xam ni man mii daf ma nar a def comme ni may def d'habitude jaay ma doole parce que xëy na daf maa xeeb moo tax ma wàcc ci turbine présidentielle bi pour dem ci animateur bi nekkoo lan moo tax woowuñu ma ak lan moo tax woyu ma ci laa gis benn ci garde corps am jóge ci moom ñëw ñu déyante que kii sol lu ñuul li bu mu yéegaat tribune présidentielle et sama carte tribune présidentielle mu ngi nii donc ma bëgg a xamal monsieur Farba que le parti APR ne lui appartient pas le président Macky Sall ne lui appartient pas moom munul cëppi-cëppi ba mën li un million de sénégalais mën munul cëppi-cëppi ba mat un million de sénégalais et le président de la république Macky Sall il a besoin de plusieurs million de sénégalais comme ni ma ko waxee sànq moment bi nga xamante ne sunu président mu ngi def réalisation yu mag ci réew bi sunu président mu ngi liggéey liggéey bu am solo ci réew bi moment bi nga xamante ne ñun askan Sénégal nga xamante ne ñoo bëgg président Macky Sall xam valeur am ñu ngi bëgg mu am deuxième quinquennat moment boobu duñu nangu kenn ku ñu écraser wala ku ñu taqali ak suñu président donc man Ngoola Ngoola Diva may xamal Farba Ngom ne ko lu ko président Macky Sall jaral jaral nañu lu ko rab bu naree dox suñu digganteek président Macky Sall dañ koy jaay suñu bakkan bii wala mu jaay ñu bosam parce que on est des jeunes et on a on a un président jeune on doit voir la jeunesse autour de lui même jaaykatu gerte caaf bi bu waree gis président Macky Sall yow Farba waroo ko ko xañ mais ku leen neex moo koy gis ku leen neex moo ko gis écrasement ay affaire yu sew yu ngay def ci biir loolu il faut que mu arrêté parce que moomoo Macky sàll moomuloo parti bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ki jiitu ci parti bi ak ki dugg tey ci parti bi ñoom ñëpp ñoo yam ci parti bi donc loolu moo waroon tey sama woote fii tey su fekkee am yéen ay question euh, li ñu ci gën a bàyyi xel mooy ne yàgg Fatou Ngom seen histoire du tey yàgg ngeen jotee euh, lan moo waral jote bi yéen ñaar ngeen bokk benn parti dafa mel si seen dese am. ah kooku moom moo moom moo xam lu tax muy def loolu mais tey man su ma nekkee maa ngi nekk ak président de la république ay ndaw ñëw pour jàppale ko jóge dëkk ak dëkk am ñu nekk ci réew mi ñooñu war nañu mën a saafonte ak président jàmm jax di ko mën a xam nga li ma la expliqué mais moom warul par exemple président Macky Sall du ku ñuy prendre en otage parce que mat na li mu doon mais bu nekkee ci biir néeg ñu tëj bunt bi bu ñu ubbiwul bunt bi du xam ki ne ci biti kan noonu la demee xaw ma siis laa mën a tuddee xaw ma wane ni que je suis le plus fort man je pense que day wane ni que je suis le plus fort que je suis l'intouchable en fait waaw maa gën a jege que voilà euh, parce que man même bi nga xamante ne euh, loolu am na Thiès bi ma bëggee dugg ci oto nit mu xam ne man ak far ba va pas dafa ne doo dugg sama oto parce que sama poste bi ma am yàggul te bëgguma ñu ñu ñu récupérer ko ci man ah loolu euh, moom ñëpp ci yam kër gi donc le président Macky Sall il faut que mu xam ne Farba mu ngi koy yàqal waaw il faut mu xam ni Farba mu ngi créer ay frustré Farba mu ngi jànni nit ñi déggoo kenn ku ko wax te ñu nekk ku nekk nga koy subir man Ngoné maa koy wax et je le défie ragaluma Farba ci saayir ragaluma ba ci baatin an ka halpular 100% min ko nenam ko jolfo babam capato sa wawi wadde mi watma ragaluma dawma daayuma ni nga bëggee Macky nu ko raw laa bëggee Macky te ëppalewuloo ñu ci parti bi ëppaliwoo ñu ci président Macky loolu il faut mu leer te ay jeune lañu duñu bàyyi suñu président ngeen jël ko yéen rek ay parents rek wër ko la jeunesse est où dans tout ça il faut arrêter à un moment donné écrasement bi man yow ci penses que man mun nga ma écraser mun nga ma nëbbu non depuis mois d'août ñoo ngi Sénégal munuñu fexe gis président dañuy bind audience ba mu yegg duñu xam fan la jaar mel ni bureau des courier dafa am lu fa fëq le président il donne des directives kenn du ko euh, euh, respecté parce que y a un mafia là-dedans. Il faut que l'OLU arrête. Il faut que le président revoie son entourage, revoie son truc protocolaire. Mm. Parce que tay su fekkente ne moom teg na dara am ñoo xam ne dañuy jaar ci suuf il faut que loolu mu arrêté. mais gis naa ne yow gis la que jàpp nga ni président a mën a gis non du question man kese yaa a beaucoup de jeunes qui ont ce problème là un sénégalais lambda qui est même apolitique am na droit pour demander gis président de la république waxtaan ak moom wax ko problème sénégalais yi wax ko problème jeunesse bi wax ko li jeunes yi namm ci moom mais booy bëgg koo xamante ni gisoo ko bu yàggee da ngay baisser les bras da ngay bàyyi ñaata jeunes ñoo fi toog te seen loxo defuñu dara lan moo tax opposition am doole suñu kaw. parce que mënuñoo yegg ci président Macky Sall mais moo leen gënal ku ñu mën a donc loolu c'est des problème et fii ak 2024 suñ ko jàppoo nii ñu jàppoo ko nii suñu xañee ñu gis suñu président pour mën a exprimer wu pour mën a wax ñu woo presse wax ak ñoom président dina ci jot voilà waaw dañ lay puus ba ci miir bi parce que suñu tëggee ay bool ñun ñooy génn wax suñu monter la jeunesse sénégalaise ñun ñooy génn wax su fekkente ne ñoo ngi wax jeunesse bi ñu génn xeex ñun ñooy génn wax ñoo nekk ci TikTok bi ñooy reyante on fait tout ce pour wone ni c'est notre leader que c'est le on veut de lui kon nag su dara desu waa su dara desulee nag lu dul nag ay kii moo war a yegg kii du yegg ay écrasante mais dañuy taxaw ñu affronter ñu affrontente il a déclaré la guerre à Pikine j'ai pas réagi à Thiès j'ai dit c'est pas grave à Mbour mu def ko et daf may xool di ma wan ne je suis fort donc man il fallait que je aussi lui montre que je comprends son jeu et du man rek la koy def parce que ñeneen ñi ko fi jot a def amuñu fit bi ma am pour wax ko man nag maa koy wax parce que man euh, bugguma suba ñu nekk di euh, metre benn rideau entre la président ak ñun ba suba am loo xamante ni am na fi président di doog a être informé. zaayam en tout cas dama leen di wax dara fit bi ma am pour képp ku jóg wax ci ki Sall lu dul yoon ma toog ci télé bi wax ko fit boobu laa am ba taxaw moom mi nga xam ne ñoo bokk parti ma am fitu wax ko li ma koy wax ay xale lañ mais dañoo xam bu baax fi ñu teg suñu tànk wóolu ko beneen bi ci topp mooy dinga nga xal di nga yab di nga xeeb xal mu lakk sa dëkk donc il faut qu'on se respecte il parle mal aux gens daf ñuy jànni day jànni ay nit mais pourquoi parti la ñu bokk président Macky Sall la ñu bokk ëppale wuñu ci gën a jege gën a yey mais ëppale wuñu ci président Macky Sall donc y a des choses yoo xamante ni day yàqal président de la république donc loolu dafa war a arrêter parce que dafa am fu ñu jëm am lu ñu war a xeex kon yow man su ma waree jàppale président Macky Sall am mbooloo bu nekk sama ginnaaw soo ma xañee ma gis ma gis président Macky du ma ko mën a dimbal na laa dimbalee man moom ni mu xamee ni dama bëgg Macky Sall di woy président Macky Sall bu xam ni man dama amal njëriñ président Macky Sall mais man dama ñëw sama kër benn jour ma gis ne Farba il a bloqué mon numéro dama ñëw dama dem permanence li fa xew-xew fa ma ñëw bëgg ko yónnee message quoi pour wax ko ne ko man dama la doon présenter benn militante Normandie dama ko bëggoon présenter femme boobu noonu Normandie la jógee militante la di sonn ci président Macky Sall ñeesu président la sax en plus ma ko koy présenter mu ne may leen ma ma jàll ma ne ko jàllal ma ñëw ba ci kër gi loolu metti ma ma ne ko ma yónnee ma bëgg yónnee ko ojo pour ne ko que mu bàyyi jànni nit yi ma gis ni moom bloqué na sama numéro. après ci laa beneen numéro mu yónnee ko message pourquoi ñoom ñi takk ci président ñun bu ñu bëggee gis président ñuy bloqué suñu ay numéro il sert à quoi alors du man rek la ko def amul benn jaar-jaar du man la ko def dañuy xam ni yow bëgg nga yegg ci kilifa gi ñu ñëw bloqué la ci kilifa gi wala ñu dem waxal la ci kilifa bi wala ñu dem waxal la ci mareem mais parti bi du famille parti bi du leneen parti bi ñun ñëpp ñoo ko bokk président Macky Sall ñun ñëpp ñoo ko bokk nañu bàyyi yàqalante bi ñuy yàqalante ci biir man biir na ma ni amal naa njëriñ Macky Sall man Macky Sall maa ko amal njëriñ leer na ma moo tax ma jógee France ba fii kon man waaw kon man keneen moo ma waroon xeex mais pas ku nekk ci biir parti bi ak mag bu toll ni moom mais nag comme il a déclaré la guerre on va faire la guerre ensemble parce que kër gi am na kilifa parce que kë kër bu lëjee boroom kër gi boo koy lijjat donc y a des choses yoo xamante ni rafetlu wuñ ko yor say garde corps kii bu mu yegg si fii kii bu mu yéeg dóor leen kii gàjj leen kii xos leen kii le président doit être au courant de ça man lu ma gëmul duma ko wax ba xamul fu ma dëkk man président Macky Sall moo ma ñor moom laay jàppale moom laa gëm mais mbégte bi muy am bu nekkee moom mbégte boobu la ñuy am ñun pour nekk moom kon amul bu président di wax ak ñun mu koy xëcc di koy mbooloo bi day ñëw amul loolu donc à un moment il faut on clarifie les choses mu bàyyi xeebaate bi ñi nga xamante ni aussi ñoom. xëy na mu ngi leen di def yenn ñu koy supporter ah ñoom la rek ah mais man moom je dis clairement ici li ma ko wax nii si sama xol laa ko tubbee dëgg la ci man. maanaam ci côté audience bi. Hmm. dafa am kilifa bu na ci ay révélation nee na pare sax gars en tout cas lu mën a xew président de revoir entourage bu dee bëgg na dem deux mille vingt quatre ñu gañe ko ci nu mu gën gaawee nu mu leeree na revoir son entourage na revoir son service protocole parce que yow boo jëlee ay nit nga tag leen fa ñi nekk ay protocole ñi nekk ay ay kilifa am koo xamante ni dafa sës ci yow am ci ñoom ndogal boo tegee sax mun na ko ñëw teggi en en douce parce que kooku day craindre postam donc yooyu yëpp mu ngi ci donc un moment donné il faut que ñu respecter nit ñi. respecter citoyens yi xam ne moom ñoom faluñu leen ñun président Macky Sall lañ fal te président Macky Sall moo leen fal léegi nag moom comme il est il est honorable député il est l'ami du président est-ce que Farba il est vice-président il est pas vice-président waaw mais il est pas vice président loolu fan lañ ko bind fan nga ko gis c'est son ami c'est son ami point donc tout ce qu'il est en train de prendre c'est lui qui prend de l'ampleur il le prend il le prend Farba fan la nekkee ah, politicien ah, professionnel la yi muy def yëpp day yàqal président ku jege président Farba écarté na la ku jege président Farba écarté na la léegi moo tax léegi dañ koy bàyyi muy def lu ko neex di wax lu ko neex kenn du ko kenn du ko il faut que le président revoie cela il faut que le président revoie cela parce que le Sénégal c'est pas un panteré le Sénégal n'appartient pas à trois personnes le Sénégal appartient à tous les Sénégalais donc moom na xoolaat bu baax comportement am na xoolaat bu baax comportement am concernant les audiences dañ koy jaay jaay ñu ko man ut ba léegi maa ngi wut audience te wax naa ko président Macky Sall nee naa ko ba ma ñëwee ba tey mënuma laa gis te koo ci sonal ne ko dama bëgg a gis président dama bëgg a gis président lay bloqué sa numéro lay bloqué pourquoi pourquoi bëgguñu nit ñi ñu gis président bi what happened lan mooy problème bi ñun war nañu am pour gisante ak suñu président toog ak moom wax ak moom wax ko li ñu namm ci moom li ñu namm ci jeunesse bi ci moom mais nag yii nii dafa war a arrêté pour ñu mun a avancer pour li ñu bëgg am ñu am ko parce que on a autre chose à fair que de se renvoyer des pics entre nous wasalaam